gouvernement satan comme ni ma ko waxee si biir semaine passée. Mhm. Euh, ku mu am ay ay kuwaag kuwaag yi mooy maanaam da nga gis euh, fen fi nga xam ne euh, daañu respecté nga gis feneen fu ñu respecté kooku. pratiquement c'est toute mesure moo mel noonu quoi. Mhm. effectivité une mesure. Mhm. day xaw a jafe surtout ci période bi nga xam ne. dañ jógee ci feet mu nekk nguur guy soog a installé wu et tout. jëlagul exactement ces marques donc day xaw a compliqué pour justement mesure bi quel nekk euh, qu'elle soit vraiment euh, euh, effective mais bon en tout état de cause li leer ba leer uh-huh. mooy que dans la globalité il y a une satisfaction gis nañ ni dans beaucoup de régions beaucoup de départements uh-huh. nañ ko bëggee wàccee na noonu uh-huh. sauf ay béréb yi nga xam ne ba tey ji wàccagu fa waaw wàccagu fa Euh, te loolu également danga koy mettre sur le compte justement mm-hmm. euh, maa ngi koy fàttali sànq euh, des couacs des mm-hmm. dysfonctionnements au sein de l'administration xam nga ñun Sénégal dafa am yu bëri yi nga xam ne mm-hmm. dañ koy sooxaale sunu biir administration soo xoolee tey pour appliquer les prix pour l'effectivité de l'application des prix mhm. euh, état dafa wàcce sur le terrain mhm. des volontaires et des forces de l'ordre doota de moyens voilà mhm. mais boo xoolee depuis combien d'années au niveau du ministère du commerce nit ñaa ngi casse direction bi nga xam ne mooy le contrôle des prix amuñu benn moyen amuñu oto amuñu dara donc euh, tey bu ñu jëlee def ko ni il faut pas que ça s'arrête à une opération de charme ou une opération de coup de poing dafa war a nekk ah. quelque chose de pérenne c'est-à-dire que euh, état ni mu jëlee euh, matukaay pour fair baisser les prix autant noonu la waree jël matukaay pour fair respecter la baisse de ces prix là <laughs> donc euh, on voit déjà d'ores et déjà ni que comme ni ma ko waxee sànq am na béréb yi nga xam ne la baisse est effective ailleurs bon on attend de voir avec les dispositions que l'État va prendre qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours espérons mais tamit ñu ngi gis euh, ñi lee di meññee yi ñoom di euh, annoncer li nga xam ne ni mooy arrêt wu euh, production bi provision production muy beneen tamit loo xamante ne bii mën nañ jàpp ne benn gàllankoor lay doon ci lu ni mel ndax ñoom jàpp nañ ne lu ni mel doonul lu leen arrangé waaw tout à fait sànq ñu ngi Georges mu ngi may liiral communiqué meññee yi Euh, boo ko li boo ko dégloo sans les défendre sans les défendre parce que il faut aussi euh, qu'on soit euh, vraiment pondéré dans ce que nous faisons mhm. euh, meunier yi nee ñoom ils n'ont pas été associés donc moo tax tax na mhm. bees bi ñuy wax ñoom mënuñu ko appliquer muy benn mhm. beneen bi boulangerie boulanger yi dañ doon ne ñoom duñu appliquer foog gisuñu décret foog gisuñu arrêté donc sànq nii y a quelques minutes arrêté ministre du commerce génn na. Mhm. bon euh, mais damay fàttali awa euh, kii ma naan awa maam Khady. Mhm. Euh, je l'avais dit la dernière fois bi ñuy njëkk wax ci wàllu baisse des prix dama ne. Mhm. concernant le secteur de la boulangerie. état daf ci yàgg am ay désillusion ba nga xam ne pour éviter ay tracasseries. état dafa ne léegi damay mettre en place un commité de suivi et d'évaluation des prix. commité boobu à chaque fois que bu ñu waree baisser wala yokk prix yi comité boobu nga xam ne meunier yi boulanger yi état les fonctionnaires du ministère du commerce ñooy daje toog waxtaan ba méngoo d'accord ci benn affaire euh, soo ko soumettre le ministre ou bien le président de la république. Euh, dama ne keroog bi ñuy toog di waxtaan c'est vrai que nee nañu waxtaan on a parlé avec tout le monde mais on a parlé avec tout le monde ne veut pas dire que on a parlé avec ce cadre formel de suivi. Euh, d'évaluation de suivi et d'évaluation des prix. Hmm. Euh, moo tax man keroog bi ñu waxee rek euh, jour bi bi ñu defee l'annonce dama xëy rek ne leen ah y a un problème man sama problème mooy hmm. la discussion était inclusive tout le monde était là c'est bien hmm. mais comme secteur boulangerie dafa am spécificité bi nga xam ne état moo ko d'accord ak les acteurs te gisuma ci biir wax ji ñu ne invité nañu su comité la comité bi teewoon na ci. dama mhm. ne leen damay ragal mu am justement euh, ay ay ay ay ay ci biir. Mhm. mais euh, maam Khady. Euh, dama ko wax ci émission bi motul trente minutes. Mhm. boulanger yi génn na ñoom du ñu respecter cette baisse là. kazaalika tey jii meunier yi génn na ñoom duñ ko respecter donc même bu dee l' est dans une logique de bien faire, c'est-à-dire appeler à mener des, des, des, des, solutions aux exigences des Sénégalais. C'est une bonne chose. Cette baisse est une très bonne chose. Mais dama jàpp ne que également il faut qu'on respecte les formes. munoo am un comité de suivi bi nga xam ne état moo ko fi teg euh, nga contourner ko woo euh, ma Demba à part woo ma Pape à part. Mhm. loolu je crois que euh, moo indi tey lii nga xam ne mooy situation mais je dis que il ne faut pas encore perdre ci secteur wu parce que coow la yëpp yëpp yëpp yëpp ci secteur boulangerie il faut pas perdre espoir. Mm-hmm. mooy que euh, l'État le gouvernement doit aller doit poursuivre les négociations. Mm-hmm. waaw dafa war a continuer di wax ak nit ñi. di wax ak nit ñi di wax ak pour les ramener justement à la région parce que aussi c' est des hommes d' affaires c' est yi nga xam ne c' voilà ils cherchent le profit mm-hmm. donc il faut que ngay wax ak ñoom euh, ba nga xam ne daañu mën a perte dara wala daañu mën a perte dara yow nga perte dara wala nga yow nga yokkal dara ainsi de suite mais en tout état de cause il faut que chacun au Sénégal yi gagne consommateur bi gagne ci mm-hmm. l' entrepreneur que sont tamit gagne ci parce que état tamit l' état vit de taxes te taxes yooyu nga xam ne moom lay jëlee ci produit yi nga xam ne mooy euh, produits de boulangerie ça lui permet également de de réaliser beaucoup de beaucoup de beaucoup beaucoup de choses muy loo xam ne nii euh, ñu ngi ci xaar euh, comme ni nga ko waxee rek waxtaan boo xam ne nii euh, dina tax ba nga xam ne nii dinañ ci gis ak saafara ci ñiy jënd leneen la ñuy dem sans plus tarder Pape Sané lu aju lu gannaaw bu ñu ci njokk yokkute wala wàññ bi ñu wàññi yenn njëg yi lu aju ci. weekend bi wala waaw gis nañ ki lee di euh, Mimi Touré ci benn émission euh, muy wax ci wàllug euh, abrogation de la loi d'amnistie moom su ma ko mënee waxee mooy ne Mimi veut faire payer à Macky Sall ses ses actes. waaw Mimi en fait elle est ferme Mm-hmm. sur ses propos depuis le début depuis mm-hmm. bi ñuy voté loi bi mm-hmm. sa position n'a pas changé euh, te ma ma ma respecte également sa position dans la mesure où euh, Mame Khady on parle de vies humaines en fait quelque part des fois Euh, moi je m'en veux j'en à certains sénégalais yi nga xam ne dañu bëgg jël wax ji euh, ñàkkal ko fayda ba nga xam ne mais alors que je dis c'est des vies humaines qui sont tombées. espoir ay espoir euh, euh, moi j'ai j'ai j'ai j'ai fait j'ai fait euh, un documentaire sur ça mais mm-hmm. euh, quand tu vois c'est des témoignages de certains certains certains parents mm-hmm. sur la perte de leurs enfants tu oh as pratiquement tu, voilà, que des jeunes mm-hmm. qui n'ont cest qu'une chose vivre loolu rek lañ doon voilà on veut parler de on, veut, on parle de pardon. Uh-huh. parce que euh, non on parle même pas de pardon on parle d'oubli. Uh-huh. parce que la loi d'amnistie mooy loolu mooy il faut oublier. Uh-huh. waaw loi d'amnistie c'est pas pardon c'est oublier. mooy fàtte leen. waaw alors euh, tey euh, je crois que pour demander aux personnes aux Sénégalais d'oublier. dafa am war a dafa am un process bi ñu war a jëkk a teg mooy aller vers le pardon. et même avant d'aller vers le pardon dafa am lu jiitu rétablir la vérité euh, maam xadi c'est dans ce pays kon a vu des enfants des jeunes qui nga xam ne dañ doon manifester un droit public droit reconnu par la constitution quelles que soient les conditions des manifestations c'était des manifestations politiques mhm. ñu dóor fi ay nit balu fi dal toj fi ay damm fi ay tànku nit damm fi ay loxo nit pattal fi ay bëtu nit loolu yëpp ci wàllu politique waxuñu ceeb bu yokk la woon waxuñu ni dañ ne woon sénégalais yi euh, dootoo leen lekk dootoo leen naan ndox bu baax loolu yëpp waxuñu woon mais ci xeexu liberté ci xeexu quête d'une meilleure démocratie la loolu yëpp amoon des gens ont été torturés à l'image de Ablaye Touré. Mhm. ainsi de suite ainsi de suite. lii nag bu amee ci réew la logique aurait voulu que. Mhm. ne dañuy taxaw les dix huit millions de sénégalais interrogé wu. qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. lan moo xewoon. comment ñun Sénégal la ñu mën a toog xoolante sunu biir. amuñu dara lu ñu yéenante suñu biir lu dul jël fital di ko dóor suñuy doom suñuy sët suñuy jarbaat suñuy yaay suñuy tànt mm. je dis c'est la première réflexion deuxième réflexion mm-hmm. ñu ne waaw d'accord ñii nga xam ne ñoo yore woon fital yi di dóor mm-hmm. ñooy ñan mm. kan moo leen jox fital yi kan leen jox fital yi lan moo doon seen finaal yi seen ñoom lan c'était quoi leur projet mm-hmm. bu ñu gëstoo loolu yëpp ba pare ba xam liñ naan les donneurs d'ordre maam xadi bu ñu neexee nag ne dañuy baale bu boobaa sax baal day yomb mais on ne peut pas je on ne peut pas awa ah euh, maam xadi faire comme ce qui s'est passé dans le naufrage du Joola qui entre nous un accident waaw un accident avec une, grande part de responsabilité de l'État de l'État de l'époque qu'est-ce qui s'était passé près de 2000 morts ñu ne enquête du am dara du am dañuy ndàmpaay mais il y a des gens depuis 2001 qui vivent des séquelles de ce traumatisme qui est le naufrage du Joola am na ci ñi nga xam ne ba tey jii ils n'ont pas réussi à faire leur deuil ñu ñëw 2024 on se retrouve dans une situation quasi similaire mais beaucoup plus dangereuse beaucoup plus grave parce que bi ay balu fital la jël di duur maam Khady les Sénégalais ont besoin de savoir arme yooyu ñi ko yoroon ñooy ñan ñan ñoo leen joxoon arme yi arme yi fi ñu jógee. Mimi Touré a raison elle est mère elle de famille elle a des enfants elle comprend la douleur de ses mamans bu nu ci condition yi di trouver des voies ne da ut nooy dédommager. ces famille avant de les de trouver un système boo leen di dédommager. Hmm. trouve un système d'abord boo leen di. rassé ñu dal xam ne que seen njaboot seen doom ils ne sont pas morts pour rien. Hmm. du xaru tabaski cent cinquante mille yi ñu leen di jox. c'est hmm. absolument rien du tout c'est insignifiant. par rapport à la vie. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. indi donc yooyu façon fii nii ñun on est friand. donc yooyu yëpp mën nga dem sax jox ko ko. waaw amul solo. donc yooyu yëpp <laughs> voilà jox jox ko amoon na fi ay tu vois yooyu yëpp am na fi. Mm-hmm. Mm-hmm. merci. yooyu yëpp ñu war ci taxaw. maam Khady xool balaa ñu naan dañuy c'est ce que Mimi Touré a dit et puis tey bu ñu demoon bay baal. c'est pas l'état du Sénégal de pardonner. c'est ça. c'est pas aux politiciens de pardonner c'est aux citoyens sénégalais mhm. aux familles des victimes mhm. à ceux-là qui sont handicapés à vie mhm. ñii ñu tëj kaso ñoo ñoo war a génn na ñun baal nañu mais personne ne peut pardonner à la place de ces gens-là c'est ça le propos de Mimi et j'aime son engagement j'admire son courage parce que tamit njiit c'est ça quoi il faut pas dévoyer l'histoire kii c'est une page sombre de l'histoire il faut que ñu leeral ko balaa ñuy pousse bala ñuy pousse et espérons nii euh, dinañ ko leeral parce que euh, bëri na si ñoo xam ne nii lu nu mel lañ doon xaar mooy bi ñu amee assises yi euh, ci justice ku ci mel ni Pape Moussa Sow sax mu ngi doon wax ne moom bokkoon na ci mu proposé pour ñu indi ci ay modification ci par rapport ak loi boobu lay ba nga xam ne nii ñenn yi du rester impuni mais malheureusement rapporté wuñ ko d'après ni mu